asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaar di leen baalu àq tey baalo àq ñëpp di ñaan yàlla di nu defal jàmm fu nu mën a nekk dellu siwaat nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen sit bi ñuy wax Tanime TV Seydina moo nekk ci xarala gi ngi nuyu Baye Modou Dieng Touba 28 Minam dégg ko mbokk yi tey taxaw seetlu bi mu ngi jëm ci eh, xew-xew bi amoon fii ci Sénégal tolloo woon ak le 16 décembre te président Macky Sall organisé woon ko muy concours alxuraan tey moom féex te xol gi maa yor ak xol bu sedd yaakaar naa ne gëj na ci man lool te jàpp naa ne ñi yeewoo Sénégal wala àdduna ku ci yëg xabaar bi dëgg-dëgg war ngaa am féex te xol ndax lii dundal xol mooy alxuraan tey moom sama xol dund na sama yaram dund na am naa mbégte mu réeréeré ànd ak loolu lépp ñu ngi sant président Macky Sall ndax dafa jëloon waxoon ci at yi wala bu matee at ci lay wala bu ko matu ko ne woon dinaa organiser benn concours alxuraan boo xamante ni mën na am loola ñu bari xañ na jàppoon nañ ne mën naa am du am wala mu am waaye yàlla dogal bi muy laata dem am na bi mu ko waxee soriwul mu def ko li des ci mu bàyyi nguur gi tamit bëreetut xañ na ñaari weer du ko ëpp ak tuuti kon dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin sant ko ci nag ànd loolu lépp nag euh, président wax na ne génne na budget boo xam mi ngi jëm ci jàngalekatu alxuraan yi àgg na ci six milliards waaye benn bi génne na ko ba nu jënde ko ay ceeb kon mbana yi dinañ ko yeesalaat euh, wax na yu bari daal xam naa jàpp na ne borom euh, suñ daara yi moom ku leen tuuf ceeb xañ ne loolu day seen kii mu jàpp ne loolu mooy seen kii waaye suñ daara yi yeyoo nañ lu ëpp ceeb yeyoon lu ëpp ceeb jamaa bi ñuy wax xawma jamaa xawma or pétrole waaye yeyoon nañ lu ëpp loolu grâce bu Sénégal amee or walla mu am li nga xam ne moo di pétrole nañ ko sant suñ mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo mooñ suuf si ci alxuraan ba suuf si màndi alxuraan demal kokki demal piir demal tuuba demal ñaseen demal fu nekk euh, gis nga président dëgg-dëgg wax na wax ju bari joo xamante ni ci discours bi waaye ànd ak luñ ci mën a jàpp rek wax na ci loo xamante ni da nga yëg ne politique dugg na ci xañ na loolu moom euh, cëram la waaye beneen bi ci xaw a metti tuuti mooy ki yore woon micro centrale bi di ñu joxoon ko ko muy joxale kàddu yi da ngay yëg ne moom ci boppam sax da doon politique al te loolu moom jàpp ma ne wareefam la jàpp ma ne cëram la jàpp ma ne war na ko dëgg la sant ko def lu baax kii na mais da yëg ci xolam ak ci santiram ni muy waxee da ngay yëg ni kii dëgg dëgg nag euh, mi ngi xaabaabal bu doon laabi fas dañuy wax na war nañ koo téye moom war nañoo war nañoo laab gi mu kii ndax euh, déborde xañ na xam nañ ko ci nituk politique waaye nituk diine ak ku tax diine tax ñu jox la kàddu gi kon gërëmal diine xam na président li mu def lépp waru garam la xale Sénégal yi wax nañ ne bu nu xoolee bit bi nu génnee muy six milliards bu nu xooloon budget bi am ci eh, ministre éducation jàpp nañ ne ministère yëpp sax bu ci ëpput budget kenn ëpp ko ci wala ci ñi ci ëpp ci la bokk la ko waral mooy responsabilité te budget boobu président toog na fi lu toll ci douze ans mësu cee nattal xale yi mësu cee nattal daara mësu cee nattal kon nag bu demee ba feene année wala ay carrière di jeex ci politique wala ci nguur gi mu ko def ko danañ ko sant gaa mais yéexe na ko waaye nag waxoon na ko def na ko ànd ak loolu lépp nag président boo déggee mi war a ngay yëg ne moom dafa mel ni amadu Ba da ko fee bëgg a samp euh, dëj ko fi te jàppoon naa waru garam euh, ci senegal ñu fal ko ba mu àggale ñaari mandam bu demee bay dem war na senegal yi xool leen ku leen soob ak ku leen neex ak nam leen neex ngeen samp waaye mu jàpp naa ba ci pexeem daal jàpp nañ ne buy dem dina fi bàyyi Amadou Ba bu fi bàyyi Amadou Ba jàpp na ne doonte nekkatul président dañuy doxal ordom wala dañuy doxal ko jàpp ma ne nguur dina doxe noonu ki fi toog keneen nekk ci biti di ko doxloo wala muy dem yaakaaruma ne mën naa waaye ànd ak loolu lépp lu ci mën a am rek jàpp ma ne président loolu mu ngi ci loxoom waaye loxol sénégalais yi la nekk ak loxol suñu borom moo tax bàyyi woon ko ñi ko yore ñu doxal ko seet ku leen soob ak ku leen neex ak nan ko bëggee ñu seet kooku ñu samp ko mu nekk seen président waaw jàpp naa ne loolu lu kii la beneen bi ci desaat mooy wax nañ ko ministre boo xamante ni daara lay am mu ne leen loolu duma ko mën a def ndax parce que daara ci ministre éducation la bokk boo gisee ñu koy laaj mooy danoo yëgut ne ministre éducation ci la ci la daara bokk moo tax ñu la koy laaj waaye bu ñu yëgoon ne bokku ci bu nu yëgoon ne ci la bokk kon duñ la ko laaj ndax parce que suñ daara yi duñ ko laaj ndax parce que toog douze ans mosunoo gis daanaka lu éducation bi defal daara te ñoom ñëpp ñu ay doomi Sénégal te yaa yaa leen uuf yaay seen baay yaay seen maam yaay seen lépp war leen uuf ñu gis ne daara aw des wala daara buñ koy jox ay mel ni ku ñuy may wala ku ñuy saraxal ñële nag dañuy toog yenn saa yi toj ay université yàq toj ay ba baare tuli bi lakk kii di laaj seeni i àq joo xamante ni ñoo seen i moroom mi goro ko bokk te la ñuy jàng pour defar réew mi li ñii di jàng di defar réew mi ñoo ñoo ci yem wala lii gën ko sax laa bëgg a wax loolu laa bëgg a wax kon nag buñ toogee ba nu xam nan xam ne daara dafa am cër ci yoon wi dafa am wàccuwaay ci ci suufu ci ci senegal suuf si dafa saf alxuraan sunu mag ñii fi nekkoon di liggéey dañoo liggéeyal alxuraan ba suuf si saf Eh, eh, gasoil am na fi pétrole am na fi ba ñuy wax sax ne jamaa am na fi grâce sunu mag ñi nga xam ne ñoo doon suuxat suuf si ñoo màndal suuf si ci taali jàng yoo xam ne alxuraan la yàlla leen yàlla fay kon président ah, ñu ngi lay sant bu baax concours bii nag lu ma doon juróom-ñaari réew ñëwoon nañ ci mu doon concours alxuraan concours boo xam ne meneen te xol mi ma amaat nag di ci ñaanal sëriñ Muntaxa yàlla na ko fi suñu borom yàggal dafa waxoon ne eh, ndam yi dina fi bari booba Seex Ture mi moo demoon indi ndam ñu demaat Mohammed Jóob la yaakaar naa indi ndam soxna Ndate Siise indi ndam tey ndey ndey ndey bu sa jatara mu indi ndam li jàpp naa ne loolu te xol la goo xamante ni gis nga alxuraan fa mu wàcc te Sénégal àdduna bépp lañ dem di fa concours di am di jël ndam yi fa alxuraan wàcc iqara wàcc fa ba ca màddina ba yow ma ak akmaltu lakum diinikum loola sëñ bi ñuy dem ba foofa di fa jël concours alxuraan di ko indi Touba sëñ Touba yàlla may na ko dara nag ci alxuraan yàlla jox na ko alxuraan yàlla wutal na ko ci jagle goo xam ña ko ca fekk bariwul malaka nil xorxaan itam lii ko yëddu borom daal doon na ko téere bi may na ko téere bi jaay na ko téere bi <laughs> moo tax woykat ba ne ko woon <laughs> mbaakol di bind di ko jox saalum di bind di ko jox gànnaar di bind di ko jox kajoor di bind di ko jox boo féetewoo di ko bindal bu féetewoo di la dundal boo koy bayal di ko bindal mu sàkk ñuy bay di la jox <laughs> moo tax alxuraan daal sëñ bi sëñ Tuubaa sëñ Muntaxaa ne ma ndam yi dina bari de alpha ndam ñëwati na Tuubaa de nekk leen rek di wax sunu xale yi di jàng ñoom di jàng di wuti xam-xam xam-xam bi gën a doon xam-xam mooy jàng alxuraan yéen jàpp ngeen ne eh, mokkal alxuraan sax koo jëfane ay ay kii la waaye mokkal alxuraan bi tilaawatin wa tajwidan wa tafsiran <laughs> allahu akbar sunu ngaa yi de moo tax mbégte mi ma am nii dafa dafa kiimaane Sëñ Tuubaa alxuraan yàlla daf ko cee may maam jaara ñu ngi lay ndokkale soxna jaara jatara ñi ngi lay sant di la ñaanal nga doon meññatum diine yal na yàlla gërëm la yal na yàlla fay la defal nga ndam loo xam ne sëñ Tuuba fii lay tàmbalee ba ëllëg yomal xiyaam ñu lay fay ah jullit yi rawatina taalibe sëñ Tuuba yi maam jaare mi na ko ñëpp teral na ko ñëpp sagal sagal na sëñ Tuuba sagal na alxuraan gis nga Sénégal lii rek day wane ne concours yu nu mas a dem liñ fi indi ci ndami alxuraan kenn indeegu ko sëñ mun taxaal leen ko fi jox ci ndami alxuraan bi mu fi toogee yàggul dara te gis ngeen ndam yi ni muy dikkee te moom xamoon na ne ndam yi dina ñëw dana leen woon dem leen ndam yëpp yeneen a ciy topp moo tax alxuraan sëñ bi mooy jara <laughs> mooy buum gi nga xam ne mooy buuma xurwatul wusxa buum la goo xamante ni du dagg waaw kon nanu jàpp ci alxuraan ñun dañu cee jàppaloo sax ñun képp ko doon taalibi sëñ Tuubaa moom sëñ Tuubaa dalaa mooy ci alxuraan jàng loo la ko waaw mooy loolu loola ci nag nga ci liggéey ci kon maam jaara ñu ngi lay sant bu baax a baax di sant mbooleem ñi ko doon taxaw nag di sëñ daara yi ñi ko doon jàngal di leen ñaanal yal na yeneen ndam dellusiwaat euh, président it wax na ne sëñ daara yi nu tëjoon am na yun ci tëj ji am na yun ci may liberté provisoire am na ci waaye nag ma wax ko benn sëñ daara bu mag a ngi ci kaso bi muy Ousmane Sonko xam naa diggante ak alxuraan xam ngeen ko xam naa kenn du wax ne Saliou day def mu baalax wala déedéet leer na ma ne ma ngay wàcc ay kaamil ca daa ca ca ca ca ca fële ca ca kaso ba leer na ma ne ma ngi koy jàng ma ngi koy tadabur gis ngeen ko njàng mu baax kon kii kenn mënu ko teqaleeg sëñ daara yi maintenant moom dong moo fi jóg di politique sëñ daara yépp toog fekk si ko ngir ni muy politique bu kenn wax ne dama yàq nag wax ji ndax dama caa dugal lu ci bokkul lii ci la bokk de te Seydina Ousmane mi turandoom moo njëkk a yaxal alxuraan moo yaxal alxuraan kaamil yi tasaaroo Seydina Ousmane mi moo ko yaxale kon bu nu gisee tey mu kon na ko bàyyi mu génn na ko bàyyi mu génn waaye kii sëñ daara yi ci la bokk bu fekkee sëñ daara yi day ci garaase wala muy def ñu bàyyi leen sëñ daara bi ci la bokk mbokk yi ñu ngi taxaw fii <laughs> di ñaan yàlla may nu wérug yaram ak wérug diine yaatal sunu wërsëg may nu mujj ga rafet salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Tanim